sa réaction à chaud euh, à la suite de l'annonce euh, du report des élections da nga qualifier l'affaire de coup d'état constitutionnel ça c'était la semaine dernière voilà avec le recul est-ce que euh, relativiser nga ñet ngay imputer euh, responsabilité yi qui est euh, au devant euh, de la chaîne des des des responsabilités coup d'état institutionnel <laughs> je préfère le terme coup d'état institutionnel parce qu'on a utilisé des institutions euh, ñëw euh, créer benn crise bu amul euh, mais gis nga loolu euh, Maïmouna dafay interroger leneen leneen loo xamante ni man jàpp naa ni lu am solo la xam nga sànq maa ngi doon wax dañoo war a crédibiliser élection bi war nañu xoolaat ñun rapport bu suñuy homme politique suñuy njiit am ak dëgg am ak promesse yu ñuy def euh, may mun a président de la république moom la ñuy wax moom mooy gardien de la constitution ñun bi ñu nekk xale lañuy ñuy commencé dégg suñu bàyyi allègement suñu gardien de la constitution <laughs> mais loolu terme boobu mu ngi ci biir constitution le président c'est le gardien de la constitution gardien mooy lan mooy ki ñu dénk dara nga war ko sàmm nga war ko saytu constitution ni mu amee solo mooy ndayu charte yi mooy définir pratiquement rapport yi am ci pouvoir yeeg politique bi mooy définir les les grandes lignes de la politique d'une nation ñu dénk ko nit ne yow yaa jiite réew mi yow sàmmloo liñ la jox ñu nekk ko sàmm ko sàmmuloo ko mais nga def tout à fait le contraire euh, nga nga mel ni tool biñ la jox ñu ne ko sàmm ko nga ruur ko xaw ma ndax <laughs> séeréer bi dégg na luy ruur man dugaleur <laughs> ba xamante ni kajoor kajoor laa ruur ko loolu lañu ñu ci ci ci cas bi ñu bi ñu am nii te loolu dafay renvoyer aussi ci leneen ci loo xamante ni duñ ci mettre l'accent souvent gis nga su suñu demoon ci élection yi nii ñu ngi war a nekk ci biir campagne électorale. actuellement. xam nga candidats yi dañuy dem di def ay dige def ay promesses électorales ku ci gagné nag <coughs> après am na looy def loo xamante ni c'est un acte solennel. balaa ngaa entrer en fonction loolu constitution bi moo ko prévoir dañ lay ne yow bi ngay def campagne yaa ngi doon dem di diggee waaye léegi gañe nga léegi da ngay waat da ngay prêter serment waat bi président di waat dafay waat d'abord pour respecter et faire respecter la constitution mais dafay waat devant Dieu et devant la nation sénégalaise ñun dëkk ay gëm dañoo gëm moo tax en 2001 ñu def benn réforme ne léegi ñun dañoo gëm léegi suñuy waat dañuy waat waat boo xamante ni dañ ci koy waat ci kanam yàlla waat ak acte solennel boobu ñu ne ci devant le conseil constitutionnel nga koy def mais c'est en séance publique sénégalais yëpp di la xool nga ne yow man ci kanam yàlla. je jure devant Dieu. je jure devant Dieu. et devant la, nation, nation sénégalaise, de respecter et de faire respecter. la constitution scrupuleusement ñu indi benn adverbe scrupuleusement munoon nañu wax rek de respecter et de faire respecter scrupuleusement mooy strictement. wax la tamit ni da ngay euh, euh, il faut que ma ma ma dellu ci nga génne euh, serment bi ci ci bi xam nga dañoo ne le serment est prêté dans les termes suivants devant Dieu et devant la nation sénégalaise je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal d'observer comme de faire scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles xam nga mënoon nañ rek à défendre les institutions mais de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles nga waat ko waat ni mu grawee nga nga ne ah li ma wàdd ci kanam yàlla laa ko wàdd man jullit laa wala chrétien laa wala ci kanam yàlla ak jël leen seede nag yéen sénégalais yi ni waat naa lii li nga waat li bi nga faloo nga teg ko fële waxuma bañ a respecter sa sa serment mais nga def tout le contraire li nga waat biñ la neewee respecter constitution nga faire respecter ko nga koy violer. mais en quoi le président de la République a violé son serment a violé a a entaché euh, la la la constitution du Sénégal euh, parce que décret d'abrogation bi mu jël c'est une prérogative présidentielle. mais. Euh... gis nga Maimouna xam nga ñun ñëpp sénégalais yéen ñii journaliste nga yaa ngi ci sa rôle da ngay poser ay questions mais ñun ñëpp xam nañu ni les raisons évoquées li ñu wax pour naan dañuy reporter élection yi wax dëgg yàlla ñépp xam nañu loolu ay caaxaan la amul fi benn crise bu am bu mën a justifier loolu rapport bi rapport bi moom dañ koo xalaatoon togg ko di wut nag di wut benn moment ci recalé yi lañu ñu bëggoon wut raison amuñu ko foofu wut feneen créer seen genre benn crise boo xamante ni amul ba ñu dugal réew mi ci crise c'est que responsabilité bi au-delà de de tout mooy léegi crise bi Sénégal nekk report bi report bi nga xamante ni fondé wuñ ko fenn fu dëgër parce que loolu gis nga dafa sax ruslu parce que ñëpp képp kuy jëfandikoo xelam xam ni ni que recours bi report bi amul ci dara lu dëgër ci liñ ko teg mais des des des acteurs politiques def nañu seen scénario ñëw taxaw ne waaw am na ay juges yoo xamante ni voilà am na ay soupçons de corruption ci ñoom euh, te soupçon de corruption bi sax ñun ci suñu candidat la jóge mais ay mbir yu doy waar yoo xamante ni xel sax mënu ko nangu waaw loolu nag dafa ruuslu